bismillah dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi mbokk yi xibaar yi ci kàllaamay Kocc Ba ma lay doon dañ koy dooree ca Saint-Louis fa nga xam ne ku jege nag namm nañoo amal ab doxu ñaxtu fileek fukki fan ak ñaar ci weeru mai bi ñu nekk ñoom nag lu ñuy naqarlu mooy njuuj njaaj yi ne dañ ko nemmeeku ci doxalinu élection législative yi nga xam ne moom la ñu jëm ñoom waa Manko Wattu Sénégal bu Saint-Louis daal nañuy amal ab ndajeek taskatu xabaar yi teewaayu Gambi Diagne ak Jeylaani Sarr. fii ci diwaanu ndar nag mànkoo wattu ndar jaaxle ci lenn yu nga xamee ni ay ndëngate la yu ñu gis ci noonu la ñuy waajale élection yi ñu jëm. et inscription yi tey gis nañu ne li ñu fi indi ci ay carte mat na fukki junne ak ñett ak juróomi téeméer ak fukk ak ñett ñu di ko wax treize mille cinq Yo xamni ñom ñoom ñoo fi ne ginnaw bi xamni ñi inscrire mi ngi tollu ci 166 carte 676 cartes tay mom dong mo fi ne ñu japp ni même buñ doon joxe junne carte par bis ci ben commission bi fi nekk dong lolu doyul pour mën a jox ñëpp sen carte ba mu dajal kon ñu japp ni nguur gi fi ne dafa wul pour dem élection ñu gis ne tamit beneen mbir am na ndax am na lu ñuy wax article ci disposition transitoire yi am na article bu ñuy wax L 354 article boobu dafa wax ni képp ko xam ni sa carte électeur génnagul numéro bu nekk ci sa inscription ci sa récépissé mën nga ko utiliser dugal ko bu fekkee ni da nga bëgg nekk candidat député kon numéro boobu boo ko mënee dugal foofu xanaa kon boo demee ba sa carte génnul da naan la kon yóbbu ko nga wotee ji rek te loi kenn du ko defaral kii bàyyi kee kon dañuy daal di valable récépissé d'inscription ne da mën na nekk office de carte d'électeur ordonnance yi amoon na fi nga xam ni nit da ñëw rek mu bind sa tur signal la nga dem wote ji ñu daan ci luubal ay élection yu dul jeex. ñuy tëgg seen gémmiñ di wëlis di ñaxtu ngir nag loolee dañ ñuy amal benn marche fukki fan ak ñaar ci weer mai bi ñu nekk. pour wane rek ni ñoom ci entreprise de sabotage la ñu nekk. am na si koo xam ni moom récépissé d'inscription mu ngi nii dafa inscrire daan voté njiit la daan voté carte d'électeur am mi ngi nii nga xam ne njiit lañ ci def foofu la mës a voté à njiit mi ngi nii bi nga xam ne ñu ngi changer carte d'identité yi ku ne dañ lay laaj fan ngay wotee dangay ngay confirmer wala da ngay changé moom mu confirmer fa mu daan wotee ni fa lay wotee ba tey confirmation baa ngi nii ci récépissé bi mu ne njiit laay voté kon ñaari documents yi conforme na waaye ba kartam génnee dañu ko daal di bindal sàngal kaam ñu ànd ak docteur nag nit jatu na lu na soccant ngir nag bañ a may lenn Macky ci li nga xamee nii mooy na muy doxalee élection yii man wattu Sénégal du ñu dippee coalition bu mag bi nga xam ne ku jege ñoom ñoo ko taxawal Déthié Fall mi nekk vice président bu parti réew mi di ñu xamal ana moo ko tax a jóg ci élection législative yi ñu jëm waaye ki nga xam ne moom di Mamadou Kassé directeur général bu SNHLM mu ngay xamle rek ne boobu coalition ay bande affairiste rek ñoom ñoo ci dajaloo Sadikh Top lañ ciy teewlu. booloo nekk benn bi ñu doon xaar ci opposition bi dafa mel ni tey jii nii gis nañ ko Manko taxawu Sénégal moom mooy coalition bu yees bi nga xam ne moom la waa opposition bi taxawal. rafetlu liggéey bi nga xam ni tàmbali na ba indi lii parce que ni nga ko waxee ñu bare gëmuñu woon dina am mais pourtant da ngeen ñu suivre rek fi ñu wër yépp wax nañu ni leader yi fii ñuy wax ak yéen lii nga xam ni moom la ñuy liggéey te ku nekk tibbee ko sa xol mooy fàtte sa bopp fàtte say intérêt parti pour liggéey pour intére askan et ci loolu dina am dépassement bu rëy bu am pour que mu mën a nekk. kii di Mamadou kase di DG wu SNHLM moom nee na kat lii amul benn njariñ ñi fi daje daal leen yitteel du dara rekk lu dul nguur. jàpp naa ne ñi ñu war a mooy sénégalais yi nga xamante ne ñoom. Euh, bu 30 euh, juillet jotee ñoom ñooy jël seen carte dem sànni ko te sénégalais yi nag dama lay wax benn affaire euh, kenn mënu leen a nax kenn mënu leen dugal ci guta ay yii nii politique la rek ndax ndaje mi moom gis naa ko sax te gis naa ne. am na ñu bëri ñoo xamante ne xëy na yaakaaroon nañ dañu bokk ci boobu booloo bokkuñu ci. bu dee Déthié Fall jàpp ne na kat booloo bii sénégalais yi ñoom ñoo ko soxla woon ki nga xam ne moom moo di doomu Tamba bi mi ngi ñuy fàttali tuuti ci histoire. fexe ba condition de vie wu sénégalais yi mën a yokk. ñaar fexe ñu am bonne gouvernance ci question yi nga xam ni lié ci pétrole ak gaz bi ñett ñu défendre donc lepp luy liberté ak droit wu citoyen ñent ñu renforcer démocratie xam nga lool boko ko tënkee rek day yobbu ñu bare ñu xamni fi mu toll ni leneen xaju fi lu dul juboo parce que li lay sénégalais yi di xaar te man mii nga xamni ma nek en contact fan yépp ak ñom ba ma demoon ba sax demande sociale la. sénégalais yi dafa am acte bo xamantene dañ ko posé woon. mooy maanaam Sénégal du ndono goo xamante ne da ngay ñëw toog jël sa doom pare jox ko réew mi loolu sénégalais yi dañ ko rejeté waaye man gis naa ne que loolu moom la ñuy jéem a formé waat ndax man ñam a gisoon sénégalais yi weddi leen yàbbi leen wàccu leen ñoom ci seen bopp ña leen doon wax ne sénégalais ñu leen wàccu ñoom ñoo boole fi mu ne nii nar ñoo indil loo xamante ne kenn xamul lan la. bu dee mànkoo taxawu Sénégal mu ngi dajale ñi nga xam ne ñoom ñooy waa opposition bi ngir gën a defaraat réew mi ñii di waa Bennoo Bokk Yaakaar ñoom ñu ngi continuer seen liggéey ngir gën a dëgëral seen doole. cest à euh, top euh, responsable APR yu nekkee ca Fatick ñu ngay xam ne rek euh, duñu am ay dëkkandoo fële ca assemblée nationale ñoom ñi leen nag doon amal ab meeting ca village bu Diok ñu ngay xam le ne danañu jàppale njiitu réew mi ba mu am ndam lu rëy ci kanamu kujje gi waaye itamit ñu ngay woo ñëpp képp ki nga xam ne bokk nga ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu daal di dajaloo ngir am raw garde ga ci yooyu la élection Mamadou Diop reportage. responsable yi jiite APR bi nek ci département bu Fatick ñom kat bëgg nañu mobiliser bépp militant ak seeni sympathisants ngir jëm ci élection législative yi ñuy jëm matarba ak ñimu andal àndal nañu du mës am cohabitation ci assemblée nationale. tay nak pour Sénégal développé. nécessité la président Macky Sall continuer liggéey bi mu commencé. meeting bi baax na. waaye téye leen seen carte électeur yedd leen seen xel. te xam ne ku gën président Macky Sall gisuñu ko fi. ñi nga xam ne ñoo ñooñu Macky Sall yi nekk ci département bu Fatick. ñoom fa seen daan opposition bi. ba toog ci seen kaw ci biir département bu Fatick. di sàkku ci ñëpp ji nga xam ne ñoo nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu booloo. nekk benn say président Macky Sall li mu wax mooy na benn bokk yaakaar yëpp ànd nekk benn ku nekk fàtte sa bopp bu ñu fàttee suñu bopp dinañ ko mën a jàppale parce que bu ñu ko jàppalee mu am ndam nañu dajaloo jeunes yi dajaloo jigéen ñi dajaloo mag ñi dajaloo ñu jëli suñuy carte su ko defee bu bés ba jotee ñu woteel le président Macky Sall ak la coalition benn bokk yaakaar ci lu jëm ci wàllu opposition bi ñu nekk ci affaire bi nekk ci département bu Fatick di leen artu gaa yooyu di wax dama cee am kenn koo xamante ne moom man ngeen koy jox parce que fa mu nekkoon dama faa ne mu ne grand parti la yor dama bëgg rek du ñu xuloo nag du ñu xeex parce que Macky ci yar lañu yar lañu la ñu dugal du ñu wax lu ñu war ta wax waaye nañoo toog rek teg li mu liggéey ma teg li ma liggéey su ko defee sénégalais yi tànn defe naa ne bu boobaa du yegg ci président Macky Sall du yegg ci keneen responsable APR département bu Fatick en ngi mais ci ndox ben dëkk bu nekk département bi ngir wuyu ji ki Abdoulaye de la République li mu ñuy seetee Khalifa Sall ca kaso bu rëbës dañ ko daal di wàññi bu baax lu ni nag ñu bari as ci askan wi di ko ñawlu bokk na ci ñoom forum du justiciable ndaxte daal di nañ koy jëli ci ñaar fukk andi ko ci fukk lu ni nag du lenn lu dul salfaañe ak ak yelleefu doomu aadama Ajara Bonardi forum justiciable ñom nak sone nañ alerte gannaaw ab communiqué buñu ñu di wax ci lu maire bu Ndakaaru di Khalifa Sall ñom nak japp nañu ni que ni amul droit yi nga xamanteni mom la wara am fële ci prison gannaaw vingt visites Yo xamanteni autorisé woon nañ ko ci altiné ju jot tay ji limbi dañ ko wañi ba ci lu tollu 10 muy violation du droit bo xamanteni ni ñu ngi koy seetaan buñu ñu ci forum justiciable partisan yi nag ñu kenn laaj leen di joxe ci sen xalaat ndax ñoom jàpp nañ ni que ni yoon dafa war a respecter li nga xamante ni moom mooy reg ñu caabi féetu seen ginnaaw. may fàttali ni Khalifa Sall mooy maire Dakar dakaar mooy capitalu Sénégal Dakar ëpp électeur ci Sénégal et kooku boo ko jàppee teg ko ci kaso bi ci loo xamante ni ay tuuma kese la te dara du ci dëgg da ngay xaar ni Dakar waay yi nga xamante ni ñoo jëloon seen carte woteel ko ne ko yow kat yow yaa am suñu kóoluteef yow lañ ko dénk. ñoom ñëpp dinañ ñëw bëgg fekk ko ci kaso bi naqarlu li ko dal wan ko ni yëg nañ ni lépp ay tuuma la lépp ay jiiñ la lépp ay sos la mais dara du ci dëkk wan ko ni aussi que ni ba fu muy mujjee ñi sa ginnaaw teew la ñu àndal. ñoom nag tey li gën jàpp ni maire bu Ndakaaru jàpp bi ñu ko jàpp mbirum yaama neex la régime bi fi nekk dafa rekk ragal ambition politique yi mu am lu jëm ci njabootam ñoom ñëpp jàpp nañu ni it deram dafa set. indignation lañ ci àndal. parce que ñoom ñëpp dañoo gis dossier bi niñ ko conduire gis dossier bi niñ ko doxalee gis fi mu mujjee ñëpp xam ni lii arbitraire kese la kabaal boo xam ni dañ ko monté woon la contre un adversaire politique nga ne donc accordé accorder liberté provisoire boobu c'est parce que am na ragal. Buñu ñu ci bilé communiqué ba tay Babacar Ba ak ñiko wol wër ñu ngi japp ni ni que maire mu Ndakaaru dafa wara bénéficier wu ci li nga xamanteni mom lañuy wax ak ak yelef jëm ci walum présomption d'innocence ñu ngi fàttali ni yitt que ni képp ku ñu prison dem ak dëkk rek mom lañ la wara téré tere pa ñu lay seet ndax bobay liberté dafa fondamental Déthié Fall mu ngay rafetlu courage bi nga xam ne Thierno Alassane Sall daal dina koy am ba moo waral ñu daal di koy dàq ci biir gouvernement bi moom mi lee deful lenn lu dul gëm boppam sunu sukkandikoo nag ci vice président bu parti réew mi lu ni mel nag war naa doon royukaay ngir bépp njiit politik Déthié Fall lañuy ñuy teewlu. commentaire bi ma

une conférence une sortie publique jàkkaarloog pétrole bi gaz bi fan lañ ci ci am opposition bi question en charge ko adressé ko ko ak ay questions précises nga ni na ci indi ab tontu muy directement di envoyer ñeneen pour indi tontu xam nga lu ñu wax euh, ci lu ñeel euh, tontu bi nga xam ne ci euh, industrie transformation lépp lu jëm ci wàllum napp bi daldi nañ koy indi ci mareyeurs yi ñoom ñi le nag jàpp nañ ne ñooñee dañoo nekkul ci yoon moo waral ba seeni i professionnel kenn yeesalaatu ko ca njalbeen ba nag tolloon nañu ci fanweer waaye mujjee nañu am na ci ñoom ñi nga xam ne dañoo dem bokk ci ñi nga xam ne ci direction bi lañu bokk Ibrahima Fall ci ay leeral. nous n'existons plus, nous ne pouvons plus exercer cette profession et il, nous, il a bafoué, il a posé un acte illégal. Pont de Foroch à direction industrie transformation bu pêche di dak li leen toumal yi tuumaal te ñom ñooñee ci li ñu nek jaarul ministre de la pêche ak autorité président de la république ñu ne ma directeur des industries de transformation de la pêche Oui, mars 2016. bi ma ñëwee ma fekk carte yi nga xam ne moom laay tàllal benn benn mandargaal muy bii ñu koy joxe ci anam yoo xam ne teguwul ci ci yoon man nag dama am suma fula dama am suma fayda du ma loo xam ne teguwul ci yoon parce que bëgguma kenn ku ku ma wax loo xam ne suba duma mën a tontu. te moo ne mareyeur yooyu nekkatuñu fanweer ndax ñenn ci ñom dañu ëlbateeku and ci dogalu ñi di wa direction bi. agrément bi du ci kenn nit du ci man misa sax bu ma bëggoon fooye agrément bi dama yaaka ñi ñi duñ ma dong duñ ma ci bay donc lolu motax ñu jël suñu responsabilité ñu renouveler carte bo xamné amul base légale mais comme nyu ñun duñu loi ñun dañu rappeler seulement interprétation. moo tax ñu jël circulaire bi ñu wax ñu ne ah ñun kat comme nit ñi dañ may woo di ma bindi leet nañ leen wax ne ñun mën ñu ñu renouveler carte yi parce que teguwul si yoon loolu moo jur coow li nga xam ne nit ñi nekk si collective bi moo la ñu yëng mais laaj leen ñaata lañ woon bi ñuy ñëw fii si réunion bi 30 la ñu woon mbaa ëpp na ko bu ñuy réunion ñaata lañ ñu te ñenn ñi comprendre nañ li tax ñu wax leen ko ñoo ñu dem sukkandiku même ñoom. ñii nga xam ne ñoo def conférence de presse am na ñu si exporté wax bi bu soree béséri dañuy jël certificat yi nga xam ne moom lañ leen jox ñu exporté ñu teg ko si table donc lu ñuy jooy ñu jox leen carte boo nga xam ne légalul parce que dañu bugg a pousser à la faute jënnu des esclaves ñun duñ ko nangu. liggéeyu marière dañu ko réglementer, ci décret 2009 12 26 buñu xati ñent fan novembre 2009 carte marière, yoyé nak niñu ko ministère bi yor pêche mom mo koy joxé rawatina direction des pêches maritimes mi catégorie 1 ak 2 waye itamit direction industrie transformation de la pêche mom mi nga xamante mo catégorie B. Ibrahima Fall wàññi entreprise yu ci Sénégal jubluwuñu ci lenn lu dul gën a xamle cartographie bu réew mi sunu sukkandikoo ci ANSD ñoom ñi leen nag daal dinañuy xamle ni entreprise yu ndaw yeeg yu digg yi toll nañu ci juróom ak juróom ci téeméer yoo jël kon nag am nañu solo lool ci réew mi Abigay lañ ciy teewlu ci leeral. wàññi gi ñu doon amal nag day fësal xarañteefu bërëbu liggéeykaay yu ndaw yi bu ñu sukkandekoo ci agence nationale de la statistique et de la démographie bërëbu liggéeykaay yu ndaw yi dañuy dugal lu bari koppar ci biir réew mi waaye nag ba tey kenn mënagu ko exploiter. li ëpp ci entreprise yi nga xam ne ñooy yëngu fii ci biir réew mi ay petite et moyenne entreprise la ñu daanaka ñu ngi toll ci quatre vingt dix huit euh, loolu dafa am solo lool parce que dañu doon wax ne réew mi réew koom-koomu PME la waaye ANSD daf ko ko firndeel léegi amatul benn naatable amatul naatable ci aussi xam ne PME yooyu ñu ëpp ci ñoom daanaka 97 pour cent ñoom ay unité informelle lañu kon ñu xam ne économie réew mi loolu li ñuy wax ay micro entreprise ñoo ko yor. bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu jëwrin gi ñu dénk wàllu njënd meek njaay mi nag résultat yi ñu am nekk na ab opportunité ngir mën valoriser potentiel économique bi nga et ne le PME yi am. Les résultats de cette euh, importante recensement réalisé dans. résultat yi tukkee ci li nga xamante ne ni moom mooy recensement bi ñu amaloon. nekk na pour ñun fu ñu mën a tënku ngir daal di gën a mën a jëmmal li ñuy am ci wàllu koom bi tukkee ci wàllu petite et moyenne entreprise yi di ab yoon wu ñu mën a jaar ngir daal di suqaliku. li tax a jóg wàññi gi ñu doon amal ci wàllu bërëbu liggéeyukaay yi nag mooy fexe ba xam configuration bu bees bu cartographie bu Sénégal waaye tamit mën a jot ci données yu bees yu ANSD résultats yi ñu am nag bu ñu sukkandikoo ci UNACOIS dina tax ba ñu xoolaat yenn politique yoo xamante ne moom la ñu doon doxalee boobu ba tey. ñu wax euh, ci lu ñeel euh, ceebu plastique bi nga xam ne ñu ngi wax ne mu ngi ci biir euh, réew mi jaaree ko ci ay vidéo li ni mel nag tax askan wi tàmbalee am tiitaange lool jëm ci seen wàllum wér-gu-yaram tey woo ñi nga xam ne ñoom ñooy njiit yi ñu daal di bàyyeewaat xel bu baax rawatina wàllum kaaraange gi nga xam ne mooy ñam yi ñuy dugg ci yi ñuy dugal ci biir réew mi loolee dak tax ba yenn ci ay jigéen di askan wi ñu tàmbalee lekk ceeb bu ñuy bay fii ci mim réew. Aïdara Bonardi jamono ji jigéen ñu bare jaaxle nañ loolu ndax vidéo bi ñuy wax ci ceebu plastique bi di daw ci internet bi bu ñu sukkandikoo ci sénégalais yi ñu taseel li nga xam ne nag moo di ceebu importé bi dafa mës a andi rek ay jafe-jafe wér gi yaramu sénégalais yi. ñu réew Sénégal ñàkk wér bi bari na fi lool leneen bu fi bëgg a ñëw affaire lekk ay plastique ak yeneen du ñu arrangé parce si doole bari fi. samay maas yi ak samay morom ak ñeneen ak ñeneen loolu moo tax loolu war nañ koo gëstu bu baax. suñu autorité yi dañu y a trop de laisser aller tamit euh, parce que ñoom euh, bu ceeb waree dugg fi euh, war nañ ko xool. ba xam liy dugg lan la parce que man loolu dégg naa ko ci sidi mi ngi mi ngi daw fu nekk mi ngi daw fi nekk ay ceeb bu ñuy dem ba place yi ñu koy defaree ceeb ah là moom c'en est trop moom. yooyu li jigéen nag artu nañu ko ne mbir moomee day tax sax sénégalais yi mën a jëfandikoo li ñuy bayee fii. Sénégal lu la dana leen dal ndax bëgguñu seen dara tise bi boo ko solee ñu bu importe bi ñëwee ñu jël importe bi. ñu bay tamaate ñi ngi bay gerte ñi ngi bay euh, ceeb bi ceebu waalo bi. man mi waalo laa dëkk mais fii laa nekk ceeb bu waalo da ci añ léegi reer bu ngooni ceeb bi boo ci añee doo reer. consommer local sax gaa moo gën waaye xam nga consommer local bi dafa am nu muy tegoo maam yow ceeb bi ñuy lekk des fois dafay am ay xeer. ah dalay togg dafay laaj set waxuñoo nag nga dem indi leneen loo xamante ne xamoo nuñ ko defaree fu fuñ ko defaree ak nu mu mel nga ñëw togg ko yekk ko kenn du xalaat ne yow noonu nga ko jëndee. mais dañuy ne yow yaa ko présenté moo tax dañoo war a jàppale bu baax parce que dañoo sonn. depuis bi wax ji di dem ba léegi ci bu plastique bi jóge foofe ca Chine ñi nga xam ne nag ñooy jigéen ñiy togg jaaxle nañu lool waaye tamit di ñaan ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñu jël ci ay ndogal ci nu mu gën a gaawe waaye nag ñi nga xam ne ñooy spécialiste yi ci mbir moomee ñu ngi dalal xelu sénégalais yi rek tey tamit di leen ñaax ñu gën a bàyyi xel ci li ñuy lekk. Ajara Ndiaye boobule ceeb biñ naan plastique lañ ko defaree kii di professeur Fallou saa ak euh, Momar Ndaw bu Ascosen dal di nañ koy euh, weddi ba mu set ndax ñoom ñi lay jàpp nañ ne euh, ceeb kenn mënu koo defaree plastique waaye nag ñoom xam nañu ne ceeb bi nga xam ne askan wi moom la ñuy lekk jamono ji dafa bari loolu amidon dañ ci teewlu Fatoumata Touré ci fan yi yëpp ñu nemmeeku ni ci réseaux sociaux yi ñu ngi wone ay vidéo di ci xamal xamale ni réewum Chine ceeb bu muy dugal Sénégal plastique la loole nag professeur Fallou Sarr di xamale ni mënul nekk ndax li nga xam ni moom la ñuy defaree ceeb ay matière organique la te plastique matière minérale lañ koy defaree. loolu mënul nekk ndax li tax nekk mooy plastique ni ko tubaab di waxee day xeetu matière boo xam ne li tubaab naan matière minérale maanaam bokk ñaari marché la ca tegu mooy mënul nekk plastique kenn mënu ko def ceeb loolee sax waral Momar Ndao bu Ascosen di xamale ni ceeb bi nga xam ni moom la ñuy importer di ko dugal Sénégal dafa bëri amidon loolu rek moo waral muy dëgër waaye ceeb bu ñu defaree plastique amul fenn. ceebu plastique moom amul plastique ku ko lekk dee. mala sax boo ko joxee plastique bu ko lekkee de donc li am mooy dafa nekk ceeb boo xam ne dafa bari gom ceeb nag su baree gom dafay kole te bu kolee euh, soo ko dankee euh, bàyyi ko ba muy xaw a wow boo ko dóoree dina bonde du tas ndax dafa am amidon boobu day kole jiixi jaaxa am ci xel yi ndax ceeb bi nga xam ni mu ngi dugg ci biir réew mi loole rek waral sénégalais yi di ñaan autorité yi ngir ñu gën a jàppale rii bi nga xam ni moom la ñuy bayee ci vallée bi ba nga xam ni qualité bi dina gën a baax ñu bañ a jéggaani bitim réew kuréel gi ëmb sage femme yi ci Sénégal daal nañuy taxawal ab euh, projet bu yees tuddee ko un nouveau-né un papier maanaam liir bu juddu daal di am këyit ñoom ñi lee tamit taxaw nañu temm ngir daal di xeex li mu jigéen ñi nga xam ne dañuy ñàkk seen bakkan bu ñuy mucc lu ni mel nag fësal nañ ko ci bés bi nga xam ne moom la leen àdduna wërngal képp jagleel ndey Fatim Lo page femme yaay ak waa kër gi lëkkaloo ba faaw mooy thème bi ñu jagleel tey jii bés bu ñuy màggal sage-femme yi mu doon ab thème boo xam ne day findal ñoom seen njëriñ sage-femme yi dañuy sàmm dundu askan wi rax li ñoom bokk nañ ci

Sénégal ñoom nag fas yéene nañ gunge waajur yi ba ñu mën a déclarer suñu doom suñu juddoo. bis bu nekk ñu gis ay yaay te surtout sa jigéen ñi ñooy ñëw ci maternité yi di ñëw di saraxu di ñëw di jooy ndax seen doom dafa jàng ba war a def examen ñu ni ko doo mën a def examen ndax amoo këyit ñu ngi liggéeyal ak directrice du centre national de l'état civil pour que maternité lu mu sore sore ci biir réew mi mu am fa benn lu ñuy wax point focal nga xam ni bu ndaw si wasinee rek ko mën a gunge ba xale bi balaa muy génn mu mën a am këyit nguur gi def na ay jéego yu mag ba tax na li mu soxla yi nga xam ne dañuy faatu suñuy wasin wàññeeku na bu baax wante li ñu gis mooy ñi tey jii des na ay défi yu ñu war a jot ndaxte bés bu nekk ñeenti soxna dinañ faatu suñuy wasin jigéen di nga xamee ni moom amul baat mën a bu soxlaa dem kër docteur mu jóg ni bërit jokk ndax peut-être que amul kilifaam bàyyiwu ko wala joxuñu ko xaalis bu mu war a mën a demee ba léegi malgré que waxtaan wi bari na jàng mi nit ñi ñu ngi leen di yee mais dafa am ay baax yoo xam ne daf fi nekkoon ma yoo xam ne ni peut-être que daf daan gàllankoor wér gu yaramu doom euh, yaay ak doom ñu koy continuer ba léegi donc yooyu yëpp dañ ci war a xeex. ci atum 2016 la ñu voté loi bi jëm ci taxawal ordre national des sages-femmes mu doon ab loi bo xam neex na lool association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal Narté dina tax ba ñu mëna a normaliser ce métier rax si doole ñu taxawal ay jumtukaay ba ñu gën a fekk askan ci anam bu gëna baax. day Fatima Lo université Cheikh Anta Diop dalal na ñetteelu congrès bi nga xam ne euh, moom la ñu jagleel feebar bi di épilepsie mu daal di dajale nag ay euh, réew yu bari épilepsie di laal lu toll ci juróom fukki juróom junniy nit euh, ci àdduna bi yépp lu ni mel nag moo waral ba ñi nga xam ne seen xel dafa màcc ci wàll wi ñu dal di ci taxaw seetlu ndaje boobule daal di am ci diiru ñetti fan ñu teewlu ci Amadou Gallo Diop moom nag moom neurologue la bokk na itamit ci ligue sénégalaise buy xeex feebar bi di épilepsie ñu teewlu ko ci micro Moussa Bey. gàllankoor di leen dal si loo xam ni feebar simple la moo taxoon ñu dajaloog suñu ay naataango yu jógee ay réew yu bare pour waxtaanee si loolu fii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar. li si doy si suñu réew yi mooy nit ñi dañ ko yóbbu foo xam ni yeggu fa. booy dañ foog ni dafa nekk feebar buy wàllaate du wàllaate bu doon wàllee kay ñun ñii leen di faj bon dañ koy am bu doon walaate ñi dëkk ak ñoom dañ koy am donc feebar boobu dañ ko war a jël en charge li ko war a jiitu mooy yëgal nit ñi nit feebar dong la am na garab yu koy wàññi am na garab yu koy faj buñ si teelee jóg nit ki mën a dem ba dootul defeti crise d'épilepsie liñ ci war a jógee mooy di dem ci kër yi ci daara yi gox yi moo tax journaliste am rôle bu am solo buñ ci war def waxtaan ak nit ñi leeral leen mbiru feebar boobu loolu mooy su ko bataay bi gën a am solo parce beneen bataay bi maar yi bu xasee ba ñëw si ñun ba ñu seet ko ni ko crise d'épilepsie la am garab yi ko war a faj kooku buñ ko ko joxee muy topp rendez yàlla mun na def ba mu saafara bu wéru ñu wax euh, lu ñeel euh, livre bi nga Cheikh Bamba euh, ko Sénégal thérapie pour un